boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu bind abone bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aoudu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu tedd bi muy asalaamualeykum wa rahmatullah di baalu xaq ñëpp di baal ñëpp xaq di ñaanit suñ boroom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu fa yéene ñëwaat ak yéen rek ci ni ñu ko baaxoo amalee gannaaw boo xamante ne bi ne teewlu nañu xutbab Cheikh Ahmadou Rafahi Mbacke ba noppi ñu ci àndak ay woroome xam-xam ngir ñu def ay jàngat ci xutba bi kon ni ko baaxoo defee rek noonu la ñuy àndaatee ak yéen ci jàngatu xutba bi di ci ànd ay woroome xam yu mag a mag yoo xamante ne bii na seeni xam-xam ñu bari xam nañu ko ñu ci ànd ak ku mel ne sëñ Mouhamadou Ndiaye Diop Touba di jàngalekatub alquran di boroom xam-xam euh, macha allah di ko ñaanal gudd fan ak wérgi yaram waaye tamit di ci ànd ak suñu baay Habibou Gaye moom it di boroom xam-xam waaye di jàngalekat euh, fële ca Ndakaaru moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax gudd fan ak wér yaram waaye ñu ci ànd ak ba tey sëñ Modou Karalo ca Touba moom it borom xam-xam la bu mag a mag waaye it di jàngalekatub alquran kon ñoom ñett ñi lañ fas yéene àndal. bu ko defee ñu jàngat rek xutba bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Rafahi def na ko ci ajuma ji nga xamante ne bii na moo dëppoo ak fukki fan ak juróom ci weeru juin waaye dëppoo ak ñaar fan ak juróom ci weeru korite kon bisimilah ñu tabbi ci biir waxtaan wi. mbokk yi yàlla rek. moo sañ digle ba noppi tegab yara fa fa ga doonte am nañu sañ a digle yàllaa ko maye ba noppi fa yar teg ca wet ga waaye wuuteeg suñu boroom gi day feeñaat foofu ndax yàlla moom sañ gim sañ a digle fa yar teg fa wet ga daa fabaat ak fayit teg ca wet ga ngir ku jëf lu wuuteeg safaanub lam dige maanaam bu diglee ne nañ def ma ngaa ko pay waaye su nee bu kenn defit ma ngaa ab yar bu tege ca wet ga auzu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa mawala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waay ñu fas yéene dikk rek ci niñ ko baaxoo defee ci jéem a jàngat xutba yu am solo yi nga xamante ni al cheikh ahmadul rafaa mbakke imam ci aliya dina koy faral di def muy xutba yoo xamante ni yaakaar naa kenn umpaleetu ko ci àdduna bi wërngal këpp rawatina ci Sénégal waaye rawatina ci Touba muy xutba yu am solo yoo xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi koy teewlu yaa ngi koy yaa ngi ciy taataan ay njariñ yoo xamante ni yu fees yu fees a fees la Cheikh Ahmad Rafaay nag di boroom xam-xam bu màgg boo xamante ni tuuti nañ lool ci jéem a jàngat ay waxam waaye ngeen xam ne suñu déggin ak suñu kem xam-xam bu gàtt rek ci lañ ci waxe kon ngeen xam ne lu ngeen ci dégg ci ay njuumte ngeen xam ne boroom àll wu ji gàtt mooy jéem a euh, jàngat ci euh, boroom xam-xam boobu nga xamante ni géej la niñ ko baaxoo defee nag ci xutba yi xutba gu nekk rek daanaka danga naan bu ñëw rekk ëpp solo moroom ji tey nag sëriñ bi mën nañu wax ne xutba xutba xutbaam gi daf ko tënk ci ñetti tomb wala kon dañ naan liñ ci déggee mooy daf koo tënk ci ñetti tomb euh, ba ca jiitu mooy wéetal yàlla muy kennal borom bi subhanahu wa ba ko ñaareel muy jaamu yàlla ba ko ñetteel muy sàkku ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamina wa sallallahu wa sallama ala hadi alamina wa ala alihi wa sahbi ajmain wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi bi ñu digloo wa nasara ba noppi dégg leen ci ñu tey daal euh, sëriñ bi euh, xutuba bi làmboowaale na waxdaaniyatullahi ak tawxiduhu waaye taqwallahi mi ngi ci ak wegeelug sunu boroom gi ko ab jaam war a wekk ndax sañ-sañam yii daal yëpp déggan ko ci biir xutba bi aouzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax di leen ñaanal jàmm di ñaan borom bi subhaanahu wa boole ñu jéggal seen mbokk Modou Kara Lo Touba leen di nuyu di leen ziar di am mbégte bu baax ci suñu jàmbaari lislaam ji di Cheikh Ahmadou Rafahi Mbacké mu mel ne xutba bi nga xam ne tey moom la def di aljumaa di dix-neuf ci mois de juin war a nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sawaal te mooy weeru korite di xutba boo xam ne bu am solo la bu xel bu matale ci àddina bi yëpp ndax xutba bi lépp dafa làmboo tawxiid te mooy tàmbali gi ba jeexal gi lépp daa dellu ci borom bi subhaanahu wa taala donte ya jiitu yëpp ci borom bi la daan dellu waaye bii daal la borom maqaamatul xariiri waxoon rek moo ca feeñ te mooy kër gi daal dëkkaloo nañ ko ki ko tabax waaye mel na ne tamit eh, yatt gi tamit delloo nañ ko ca lawbe ga mu mel ne bi mu njëkk a wax nga xam ne tomb boo xam ne ñun ñëpp war nañ ciy gën a bàyyi xel te mooy digle ak tere gi nga xam ne boo xoolee ci àddina yàlla yaatal na ko ba may ko ku ne waaye danañ ci dégg ne bu suñu borom bokkut ak kenn président wala buur walla ministre wala sax ñi nga xam ne ñoo jiiti wàllu àddina moo xam ci wàllu yoon ku ci ne mën ngay digle ak a tere wala sax ab sëriñ wala ku mën a doon waaye ndeke ci seen digle yaak tere yëpp la bokkut ak tereg borom bi subhaanahu wa taala ndax ku ci nekk ci ñoom da lay digle da lay digal mbaa mu tere la nga def mu gis mbaa mu ñàkk a gis borom bi nag waxtu woo wula digalee boo defee gis na waaye bu la teree tamit boo bàyyee gis na euh, suñ borom subhaanahu wa taala mooy ki nga xamante ni buñ la ko doon tënkal ci tawxiid dañ naan mooy ki nga xamante ni bindul boppam te kenn bindu ko te jekki-jekki am tàmbalewul fenn yamut fenn kon kooku mooy borom bi subhanahu wa taala di kenn koo xamante ni amut kenn ku koy ñaare ma in lahu min thaanin ni ko Sëriñ Tuubaa waxe ndax borom bi subhanahu wa taala ngi wax ci alquran ne law kaana fihima alihatu illa la fasadata bu fekkonte ne ay yàlla moo am ku dul mennum yàlla kon ak yàqute mooy am ndax ci misaal rek tey jii Sénégal bu fekkonte ni ñaari président dañ fay am président bu penku ak bu sowu te ñu bokk seen suuf muy suufu Sénégal président bi bëgg dogal loo xamante ni dëppwut ak dogalu président ba ca des ku nekk xam na ne foofu ay jàppante ak ay jaamarloo moo ci am waaye dara du dara du sotti borom bi nag noonu la mel ci nguuram gi mooy amut kenn koo xamante ni nekk na fa wetam di sañ euh, ci nguuram gi lu dul moom rekk moom moo sañ loola ak moom moo koy namm moo tax moom moo am sañ-sañu digle ci ni ko sëriñ bu waxee gàll ci ab yar waaye moo am sañ-sañu digle it jël ak ak fay teg ca wet ga lu dul loo xamante ni rek borom bi moo ci mayee sañ-sañ ci tëral ay atte yoo xamante ni te atte yooya moom moo ko rëdd wax ne nañ ko tëralee nii lu dul loola euh, lépp lu mën a doon moom moo am sañ-sañu gàll ci ab yar te même attekat yooyu sax nga xamante ni ay attekat loo attekat lañ yoo xamante ni attekatu lislaam la nga xamante ni suñ borom bi moo rëdd ne nañ nekkee nii ci kaw suuf ku ci jàddu yoon nañ la teg ci aw yoon waaye loola sax ñooñu di àtte it ci zaahir si rek lañ mën a àtte ndax nit ki tey jii su tëju woon cib néegam e, def ak njaaloo te kenn xamu ko àttekat bi mënu koo xam ba di ko ci teg ab daan lu dul ne moom moo saxal ne def naa ak njaaloo wala mu am ay seere te loolu lu jafe-jafe la waaye it attekat kenn mësta gis nit ku julli ba noppi wala mu woor ba noppi ñëw ci attekat bi tàllal ko loxoom ne ko fay ma sama koor gi wala fay sama julli gi kon ak pay borom bi subhanahu wa taala rek moo ko am te moo ko manit su borom bi digle woon sax wala mu joxe sañ-sañ ci ne ab àttekat ku def lu baax nanga ko fay amul benn àttekat ci kaw suuf boo xamante ni mën ngaa matale pay googu ci misaal rek tey ji suñ ne woon euh, président de la république képp koo xamante ni xëy na julli ci kaw suuf maanaam ci ci territoire territoire Sénégal euh, na nga ko fay waxtu nekk nga fay ko euh, nangam ci ab lim yaakaar naa su fayee benn bis wala sax est ce que ndax sax dana ko mën a fay lay wax kon borom bi rek moom moo am ak pay goo xamante ni moo ko mën a fay tayit fay ga di doon pay goo xamante ni gu duun lay doon eh, subhaanahu wa taala ginnaaw mm, fa fi def fi dara nekkul moo fi amal lu fi am ndax mooy aw jade naa minal adam moo nu amal ci ak ñàkk kon lépp ngi ci loxoom moo sañu digle sañu tere sañ caa euh, def ab neexal ci ku defee ndigal ji waaye saña nag euh, yar ki nga xam ne moo jàdd ndigal yooyu moom rek moo ko sañ ndax lan mooy ki nga xam ni li muy jug ci alxuraan ni wala si joo gis rek la ca topp yàlla rek ko man loola moo ko may moom borom bi subhanahu wa taala mu sañe def yii yu ma wax nga xam ne Sëñ Tuubaa da koo tënkan ci wenn bayt nii loolu mooy alxuraan amrun wa nahyun wa waadun wal waidu maan ila axiri alxuraan yii rek la ay digle ci ne ak i tere waaye ay dige mi ngi ci ngir ñi topp waaye ay tëkkoo mi ngi ci ngir ñi jàdd kon fa tabaarakallahu kon borom bi subhanahu wa taala bu ñu dégloo xutba bi daal dinañ jàpp suñu bopp lool ba duñ xuus ci mbamb masalan laal na tomb bu am solo léegi nit ñi dañuy topp takk der ba fa fàtte jëmb ja ndax dinañ wax mbir topp ca wax ja ba def ñuy wax débordé bu boobaa nag dutu am njariñ du am njariñ di nga ci dégg nii yàlla doy na nu nan ko doyloo maanaam doyloo suñu boroom mooy noppal jaam bi ndax yàlla nag doy na ñëpp waaye ñëpp dañ koo doyloowul danañ ci dégg tamit ci biir xutba bi ne yëmul ci digle rek ak tere lu dul ne nag digleem ak tere gàll na ca dara muy kim digal mu def am na lum gàll ceelam ko digal te mooy gàll na ca moom euh, war koo may aljana te mooy euh, moom ki digal mu def muy inna lil mutaqina mafasa borom bi ne ñi nga xam ne dañu ma ragal te mooy bi ma waxee ne ragal leen ma topp samay ndigal def nañ ko borom bi nee na ñooñu texe nañ kon waajal naa leen ab neexal te mooy aljana joo xam ne adaayaqa wa axnaaban ay sardin laa leen di defal ay tool yoo xam ne day meññi lool ak raisin ak yéen bëgg wa kawaaxib atraban ma may leen fa ay jànq ay jigéen yoo xam ne dañuy maase kenn du mag sa morom kenn du màggat wa ka zan diaqan laa yasmauna fiha laxwan wala kizaaba su ko defee nag aljana jooju nga xam ne seen naanu ya dara du manqué kaase day fees dell duñ dégg dara lu leen di déranger duñ dégg wax ju dul dëgg wala coow borom bi naan leen am min rabbika ataan xisaaba li nag ak payoor la ci sababu ba ngeen nekkee àddina ma digal leen ngeen daal di def kon digle ak tere ndeke góog borom bi gàll na ci loo xam ne du dañ mukk waaye bu la teree tamit nga lànk am na lum ca gàll euh, muy inna jahannama kaanat mirshadan littaaqiina ma'aaban laabisiina fiihaa ahqaaban laa yasuuquuna fiihaa bardan wala sharaaban illaa amiman wa qasaaqa borom bi ne jahannama kat ñeel na ñi nga xam ne dañoo bew ndax tere naa leen ñu lànk kon ñoom foofa la ñuy sax diir boo xam ne du jeex su ko defee nag Euh, duñ fa naan lu dul loo xam ne lu tàng la bu ko defee borom bi naan leen jazaan wifaaqa lii nag ak payoor la gu dëppoog ba ma leen teree ngeen daal di lànk daal di nuur ca la ngeen doon def waaye da ci dégg tamit comme ni nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci ñaareel bi tomb bi euh, te mooy ku la mënal sañal la bi maana ki la wax nga jaamu ko moom moomu am na loo xam ne moo la ko mënal te kenn fekku la ca koo waxati ku dul moom yàlla rek euh, subhaanahu wa taala euh, bu la sañalee am na loo xam ne mënalu la ko woon euh, muy indi la àddina kooku yàlla rek moo ko man kon ki dañ ci dégg ci biir xutba bi ne kon moom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bim la waxee ne la ah nanga ma daal di jaamu dafa fekk mu mënal la loo xam ne kenn mënalu la ko woon waaye da nga ciy bokk na ci la ciy gën a dégg rek mooy borom bi subhaanahu wa taala ginaaw bi mu la jaamuloo daf la fay tegal dara kon gis nga bari na ku la digal te digalu la fa dara ca digal ga loo xam ne mën naa boo boo ñëwoon ci moom di ko laaj a ah, li tax ma lay jaamu loo ma fi tegal mënu ko andi kon borom bi subhaanahu wa taala bim ñu waxee ñu jaamu ko dafa andi ay xojja yu leer naññ danga ci dégg ne kon loolu kay ndeke moo tax kon Haaruna ba ko Muusa wutale ba mu ñëwee ne gaay waaw yéen yéen du ngeen bàyyi li ngeen def te ngeen ñëw topp suñ suñ borom ndax kat wa inna rabbakum rahmaanu fattabiuni wa atixu amri na ngeen xam ne seen borom mooy yàlla kaay leen ngeen topp ma comme andi lu leen lenn loo xam ne mën nañ caa jàpp xaalu dañ ko wax ne ko lan nabra alayhi akifin xataa yarji'a naa Muusa ah du ñu bàyyi lii kat ndax Muusa Saamiri am na lum ñu indil kon yow andiloo ñu luñ jàpp kon ñun fii lañuy ñuy téye rek nekk ci yëkk wi rek ba Muusa Saamiri daal di dikk. ba Moussa euh, mu mag ma daal di dikk boo ko defee nag ñu xam lim ñu indil kon loolu dañ ci dégg ci biir xutba bi rek li si Amadou Rafa yi wax ne euh, borom bi subhanahu wa taala ci moom mi nga xam ne bu la jaamuloo dafa fekk mu man Allah comme Ibrahima alayhi salaam la mu waxee woon baayam yaag nitam yi ne leen ma hazi tamasilu lati antum la aakifun ñu ne ko na euh, wajadna abaana laha abidin fekk nañ suñu baay suñu maam ñu daal amuñu ci xam-xam amuñu luñ mën ki waaye daal fekkoon nañ baay ki maam di ko def rek ah Ibrahima ne laqad kuntum antum wa abaaukum fi dalalin mubin li ma gis ba gis ko yéen yéen ñëpp da ngeen a réer gars yi nag kon xam nañ ne kuy jaamu dara war ngaa jàpp ci lu moo tax ñu tontu ko ne ko aji tanaa bil xaq am anta min allaahibin ndax dëgg nga indi wala da ngay kaf mu ne kaf mukk akamansuré kaf bal rabbukum rabbu samawati wal ardi a fataraxunna wa anna ala dalikum min alchaahidin waaw kaf de ki ma leen di wax mooy ki leen kereel ki leen defal juróom-ñaar asamaan ak suuf waaw te man bokk naa ci ñi gëm loolu kon gis nga gëm-gëm lu am solo la waaye kon liñ ci war a jàngee te déggee ko ci rek mooy yàlla ñëwul rek ne jaamu leen ma déedéet def leen li ma leen digal eh, bàyyi li ma leen di tere daf ñoo mënal lu ñu kenn mën a lut te mooy ginnaaw bi ñu nekkee ndox mu denc ñu fa soob ci biiru jigéen ba waxtu ko soob mu génne ko ñuy tële ak a man muy nekk ak ñun ba ba man mu ne kaay leen ngeen bàyyi lépp te ñëw def li moo tax seexul xadim ne laa takulanna abadan risqal ila wa anta fi kulli saman ila digal naa la bu lekk mukk wërsëgu yàlla ba noppi di fo wala ngay jaam keneen ku bokkut yàlla kon euh, da nga cay rek ne euh, yàlla moomu ànd ak loolu lépp nag kenn melul ne moom ndax keneen ku bokkut yàlla tamit su la digalee euh, su la waree digal soo ko moyee mu téye loxoom mu téye boppam ci yow kon ba tey yàlla wuute naa ñiy digle waaw ndax yàlla mooy ki nga xam ne moo la bind maanaam la te da lay digal nga lànk muy continuer di la xéewal nga koy moy muy continuer di la suturaal nga koy fàtte muy continuer di la may ak wér kenn bokkut ak borom bi subhaanahu wa taala li ngay def baax na lool waaye soo bëggee ngërëmu yàlla nag dangay ngay ruuj bala ngaa bay bala ngaa ji ba muy sax ngay bay mu ne ko nu may defee mu ne ko fu la tusbaar fekkati boo xamee ne waxtu jot na ba nga jàpp ba noppi digal naa la digal ko képp koo xam ne bataaxal bi agsi na ci moom du digalu farata ji waxtu yor nag waaye daf koy xemem loo rek yoon yu gën a gaaw ci am yàlla mooy ruuj bala ngaa bañ dinañ dégg wax ji nit ki day war loolu boppam loo xam ne waru ko mooy ilzamu maa loolu nit la ko war a def te bañ yam ci lim suñ te bañ def te gis nga misaal yooyu mu ci joxe ci fonk goo fonk farata yi tax nga ngay jiital nawaafil bu dee ci mbirum àdduna de noonu dinañ ko def waaye nag gis nga bu dee ci mbirum jaamu yàlla moom noo ngi bëgg julli gi gaaw ak ngi bëgg julli gi euh, gàtt waaye bëgguñu julli goo xam ni jii ji ajjuma ji juma boo ca demee day xutbaam day yàgg ay rakkam ay saar yi day gudd moonte bu dee ci yeneen yi dañuy bëgg bu dee théâtre wala film na gudd bu dee yeneen yi bu yeneen kon sëñ bi dafa dellusiwaat nit ñi bu baax a baax ci coobale suñu boroom ji nga xam ni moom moo ko jagoo ñu bàyyi ko moom te lu nekk ay jaam waaye nag fexe ba Euh, diine yitteelu ba nu warlul suñu bopp loo xam ni jëfug coobarew lay doon te bañ yam ci yi nga xam ne sañu ko bañ ala ko laaj ceet mi ngi xamle ni kenn ku ne ci nit ñi boo fëggee sa sa dënn wane ni nii nga toll du tey di nga yaakaar sa moroomu nit daal ci joxe ay misaal loolu mooy ñun kenn ku ci nekk amul ku nekk cent pour cent borom milliards yi mënut a liggéey aw daal wu mu sol di borom milliards yi munta bay lu muy dunde baykat bi moom it soxla na kii defaru dàll kii defar oto moom it soxla na kii defar njëma ilaxiri ilaxiri kon waxoo kulli si ilmin alim jooju mu jënj loolu lu mat a bàyyi xel la tomb bi muy mujj nag mooy doyloo sunu boroom subhaanahu wa ci suñu lépp ndax mate gu mu ko mate wéetal suñu boroom subhaanahu wa ndax wéet gu wéet ca wéetam ga te fardal fardu boroom bi moo wéetoo wéet ga waaye ñun ci suñu bopp nu am tawxiid mu di ko natt ci maam Ibrahima alayhi salaam ci digganteem ak ay mbokkam ba mu leen di bëgguñ jëfandikoo xel ci li ñuy jaamu mu laaj leen ba xam ndax mën na leen a fegal dara ndax mën na leen a jariñ dara ñu ni ko déedéet mu wan leen ni na ngeen jëfandikoo seen xel kattanu suñu borom feeñ na ci jaam bi ci ni kenn mënul ndek yàlla rek a man ndek yàlla moom moo dajale yooyu yëpp nga xam ne nit ku ne da koo soxlaa sa morom mooy azamat mooy ki ñëpp jublu ci moom mooy ki nga xam ne bu ñëpp yoroon xol bi gën a rafet gën a jub gën a baax gën a ragal ak yàlla ànd nit ak jinne ak malaayka di ko jaamu du yokk dara ci nguuram gi bu yoroon xol ba gën a euh, dëng ci àdduna mel ni firaaw na di ko mooy ndeke du mën a wàññi dara ci nguuram gi subhaanahu wa taala kon ndekete moom yii mu defal yépp ay bunt la yërmandeem la ngir bëgg rekk ku dekk daal di dëkk ci kër xewal ga nga xam ne ñëpp ci lañ bëgg a dem ci yàlla ci dem kon yàlla yàlla guddal fanu Cheikh Ahmadul Faa'i yi bàyyi ko fi damay wax ni bu defee xutba ba noppi man damay cay dégge loo xam ne dama naa dégg nii mu demee noonu yàllante kon ñëpp ko nii yàllante kon ñëpp mën koo jëfandikoo nii. waaye ci dégg ba tey ci biir tomb bi ci biir euh, euh, xutba bi ne ndekete. Euh, def lu baax la muy baax baax euh, bokk na ca la ci gën mooy bokk na ci yi ci gën buñ la def loolu baaxet nga xool ka lay def loolu am gën a bëgg euh, te donte sant la ko te boo ko defee mu kontaan nga def ko masalan nga bañ a ci julli kese waaye boo jullee nga teg ci ay nawaafil waaw nga boo diglee lu baax nga bañ a ci digli ko waaye nga tere ab safaan waaw kon bokk na ca tamit euh, di jëf lu baax waaye ngay jëf di jëfaale loo xam ne boo ko defee ñu fay la te bañ a jëf rek loo xam ne boo ko jëf boo ko jëfut rek am bàkkaar waaye na nga jëf loo xam ne kenn boo ko jëfutoon doo am bàkkaar nga jëf ko ngir waajal ca tiyaaba waaye bokk na ci tamit euh, bala ngaa comme li sëriñ bi wax bala ngaa bay da ngay ruuc loolu mën nañ caa dégg rek ne bala ngaa jaamu yàlla faw nga làpp kon bala ngaa am yàlla faaw nga laabal sa xol sa diggante sa borom waaye bala ngaa jaamu yàlla ci diggante ay jullee léegi ci aju faaw nga làpp waaw nga làpp bala ngaa woor faw nga yéene kon jaamu yàlla gala yàlla di faye faw nga laabal sa xol laabal sa cër ngir mën caa dal di dem di tànq waaye bokk na ca e, lañ cay déggee muy jullit bi nga xam ne dañuy nodd ba nga xam ne sa digg sa borom rek moo ci waroon des nga fàtte sa borom jëm ci àddina maanaam fi nga xam ne dem nga ba nga xamante ne ni fii nag sa digg sa borom képp la waroon des nga xam ne nodd nañ ba woola Euh, ni ko sëriñ bi waxee nga xuus nag ci diggante nodd gi ak julli gi xuus ci mbirum àddina te xam ngeen ne loolu boo demee ci alquran fi mu wax ne fa xalafa min bahdihim xalfun adaau salata wa tabaau shahawaati fa sawfa yalqawna xayya illa man taaba wa amana wa xamila sharia borom bi ne am na ñu baax ñu ne woon àddina di jaamu yàlla ba jóg fi am ñu leen wuutu seen ginnaaw bi ñooñu demee nag a ah, ñu topp seen nafsu wuutu leen ci wuutu gu ñaaw borom bi ne daañ leen sànni ci xur wu ñu wax xay xabla ibnu abbas di hibrul umma bañ ko laaje aay bi dafa wax ne max eh, na laysa maxnaa adaahuha tarakuha bi kulliya maanaam kii nga xam ne daf bàyyi julli du ko bàyyi lépp waaye nag walakin wax waxan aw xaatia mooy ki ko yeexe wala si waxtu waxtu muy ne ko imaam waxe nga xam ne mën nañoo nodd nga xuus ci mbirum àddina ba waxtu wa raw moo tax Sahiid ibnu Musayyab di imaamu taabihin dafa wax ne eh, fa xalafa min bahdihim xalfun adaau salaata nee na mooy ki nga xam ne waxtu wi day jot mu di ko yeexe di ko yeexe topp mbirum àddina ba weneen waxtu ñëwaat beneen waxtu ñëwaat mu war koo julli nekk ca ba weneen waxtu ñëwaat kon loolu lañ ko ci dégg moo tax euh, saadu euh, saadu ibnu abi waqaasin nee na laajoon naa yonent alayhi salaam ani lasina hum euh, ani lasina hum an salaatim saaun ñan ñooy ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy jamu dañ ciy sàggan mu ne huwa taaxirul waxtu mooy ñi nga xam ne dañ koy dañuy yeexe waxtu wi waaye da ba tey danga ci déggee ci juróom-benneelu tomb bi eh, ci aw déggin ci juróom-ñaareel bi di nga ko ci déggine li sëriñ bi di wax bi mu doon wax ci kooku nga xam ne bi mu ñëwee ci ah, sëriñ bi mu ñaanal ko ba noppi am lum ko jox ba mu demee ba daan ñëpp mu dellusiwaat ne ko yaa ci des kon foofu lañ ciy dégg mooy ndekete doomu aadama eh, waxtu woo ko xamalee mbaa boo ko joxee ba mu yëg ne toll na ne yow faaw rek mu wane jikkoom xam ngeen ne loolu day am waaw nit day ñëw ci yow du man dara nga di ko mënal ca loola waaye bu demee ba man wan la jikkoom loolu dafay nuru li wolof di wax ne boo yafalee sam xar ba mu màgg balaa mbëkk kenn yow la njëkk daan kon loolu bari na ci melokaan doomu aadama la nga xam ne daanaka lu mu xam bés bu demee ba xam ne kenn rëwatu ko wala kenn ëpp leetu ko wala kenn gënatu ko euh, yëkkati baatam la ci ëpp day daal di wane jikkoom jaamu yàlla mooy li nga xamante ni mooy li ñuy wax al amalu bil jawaarix maanaam mbir yi al nutq bil lisaan wal amalu bil jawaarix mooy nit ki bu seeree ne yàlla mooy kenn muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la loole ngir li koy dëggal mooy daf koy jëf ci ay cëram te jëf googu mooy tegtale ne man suñ boroom subhaanahu wa taala nangu naa doon sab jaam ci fas yéenee jëfe lépp loo xamante ni digal nga ma ko waaye fas yéene moytu ak di bàyyi lépp loo xamante ni tere nga ma ko kon day mel ne ak jaamu yàlla day dëggal rek nit ki lim fas ci ab xolam ndax nit ki bu fekkonte ne dafa wax ne gëm naa yàlla rek toog ah, gëm yàllaam googu day su ko mën a seere lu dul ne def koo jëf ci ay cëram kon jaamu yàlla ah, day wane nangu ak njaam nangu ak njaam ci borom bi la bind waaw waaye nag jaamu yàlla googu ñu xam ne amut lenn loo xamante ni dana ko yokk boroom bi mbaam mu koy jariñ li ci misaal rek bis bu set ngeen gis ab jaamukatu yàlla bu màgg bu kawe fa suñ borom subhaanahu wa taala ñu xëy xëy gis boroom bi jël ko bàyyi fi ay maykatu yàlla ñu ne fi gàññ gàññaaral kon loolu rek day tegtale na yàlla jaamu gi ñu koy jaamu amulu ko benn njariñ su doon loolu kon day jël suuf si wàccee fi ay jaamukatu yàlla ñu fees fi dal waaye xam ngeen ne suuf si li fi nekk ci ay mooy yàlla suñ borom bàyyi leen fi boo doon ne jaamu ko dala ko amal njëriñ kon ñu koy jaamu rek la fiy bàyyi kon ñoo xam ne jaamu yàlla moom day tegtale ak nangu ak njaam ci borom bi subhanahu wa taala waaye tegtale wut ne day jëriñ borom bi mbaa mu koy dolli dara euh, bu ñëwee ci tomb bu mujj bi muy ngërëmal yàlla hmm, ngërëmal yàlla di wane rek ak cofeel ci borom bi subhaanahu wa taala mooy day mel day mel nga wax ne sama borom subhaanahu wa taala man kat sopp naa la sopp goo xamante ni ah, du ma ci rek li nga ma jëfloo muy julli woor natt azaka aj waaye damay dàkk sa bëgg saa yoo xamante ni def naa li nga ma sant bu noppi dina xool loo xamante ni su ma ko defee danga ma ci sopp da ma ci gërëm ma di ko teg sama bopp te donte tegoo ma ko kon day mel ne ngërëmal yàlla mooy tegoo loo xamante ni yàlla tegu la ko waaye dàkk bëgg borom bi ak di wane sa cofeel ci borom bi subhaanahu wa taala euh, moo koy maye. bokk na ca li nga xam ne sëriñ bi jeexale na ko te mooy loo gis ci àddina dafay jeex ba mu des li nekk ci yàlla kon foofu lañ ciy dégg mooy ndekki àddina li fiy nekk li muy bari bari bari bari lépp rek. Ah, wërta bari xéewal gi wërta bari ba ñu fàtte borom bi subhaanahu wa taala wuruñu koy daw di ko wuti ba fàtte borom bi subhaanahu wa taala ndax kullu man alayha faanin moom la wax ne maa indakum yanfadu wa maa indallahi baax li ne ci ni loxo day jeex waaye li ne ci borom bi subhaanahu wa taala du jeex ndax ñëpp ci borom bi subhaanahu wa taala la ñuy mujj moo tax nag mu ne nag borom bi ne lu ngeen fi gis lu ne day jeex bam des borom bi subhaanahu wa taala ànd ak loolu lépp nag nga xam ne ci àddina lay xewe moom la sëriñ bi kon nag li ñu war a def mooy ñu gëm yàlla te xam ngeen loolu moom la ñu Sayxul Xadim jàngal gëm yàlla te alxuraan ba mu wax gëm dafa ne ki gëm yàlla mooy ki nga xam ne du topp alal li ba fàtte yàlla yaa ayyuha alladina amanu laa tulxikum amwalukum wala awlaadukum an dikrillah mu ne boo defee loolu nag ah fa ulaayka humul xaasirun ci ñi perte ngay bokk mu daal di waxaat ne wóolu googu tamit yàlla lañ ko war def xam ngeen eh, ragal ak ak yaakaar dañ ko war a jëmale ci borom bi manaa bi nga nekkee ci àddina ngay ragal suñu borom waaye di yaakaar na nag yàlla na la defal xéewal ngay yaakaar na yàlla na la defal xéewal ànd ak tamit euh, doyloo ko xam ngeen loolu mooy la Cheikhul Xadim waxoon xam nga yàlla doy nañu ñëpp waaye ndax ñu ngi koy doyloo moom dafa waxoon ne fa qultu asbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayral xilmi wa diini suñ ma waxee dama leen wax ne yàlla doy na ma waaw fa qultu doy na ma waktafaytu bihi te man doy na ma waaye xam naa ne ma itam doyloo naa ko kon mbir dana la doy te fekk doo ko doyloo bi maanaam mën nañ laa jox loo xam ne regg na la mais biñ la ko joxee nga koy xool ne lii reggu ma dem ba ci biir ne ah dama sama bët ma nax kon bokk na ci yooyu juróom yi nga xam ne tamit sëriñ bi jeexale na ko muy ñu gëm yàlla wóolu yàlla yaakaar ko ragal ko te doyloo ko kon daal xutba la boo xam ne bokk na ci yi nga xam ne moom itam dikkati na ci jamono fees dell ak tawxiid waaye delloowaat ñu ci boroom bi subhaanahu wa taala ñu ngi koy ñaanal euh, suñu borom subaana wa taala dolli ko yàggal wéeral ko kattanal ko ba ay yéeneem ci lislaam mu àggale ko fu kawe njortam. noonu ma ko misaalee ci diggante sëriñ bi ak taalibeem boobu mu doon dënk di ko wax ne ko euh, li ngay def kat baax na muy buñ noddee nga dem julli waaye nit ki nag sàkku ngërëmal yàlla. moom moo war a nekk yitteem sàkk ngërëmul yàlla nag ku koy def doo yem ci li nga xamante ni moom la la yàlla sant kese waaye da nga ci dolli ay jaamu yàlla yoo xamante ni ginnaaw boo defee farata ji ba noppi da nga cay toftal ay jaamu yàlla yoo xam ne yaa ko tegoo sa bopp ngir di ci wut ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala kon ni ma ko waxee rek xutba gi day xutba bu am solo bu riis bu am solo lool boo xamante ni mënee su ko tënk ci ay ay ay minutes yu néew kon dañ ci euh, jukki rek suñu kem ak dégg ak suñu kem suñu gàttuk àlluwa lu ci jub ñu sante ko yàlla borom bi subhanahu wa taala lu ci dëng it ñu xam ne mbokk mu xeebu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bës fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo